ñu waxtaanee li nga xam si xëy na xew na ci réew mi wàllu actualité tey jii nag euh, ñu ñëw fii si diwaanu Asalem ñëw si suñu jëwriñ sëñ Ibrahima Dramé ku ne xam ni moom yitteem yëpp ci alxuraan la suñu borom def mu bokk ci raabita alxuraan bi nga xam si nekk na ci diwaanu Louga. kon gannaaw bu ñu suñu nuyoo sëñ Mountakha Mbacké xalifa général ku lu murit di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér noonu ko ñaanee mboolem kilifa diine ne ci biir réew mi ak ci bitim réew mi kon sëñ Ibrahima da lay bàyyi nga nuyoog mbokk yi xam si ñoo teewlu la chaîne Lougatoise mooy Louga TV fii ci biir biir réew mi ak bitim réew mi laataa ñuy dikk ak yow ci ci laaj ak tontu yi ndax suñu diggante ak yow أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق رجب وشعبان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ورضي الله عن الأبي الخديم القائل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 di ko teg si loxol sëriñ Mahmoudan mu jàllale ko ci kilifa yëpp koo xamante ni ñu ngi si biir dëkk di nuyu mbooleem sëriñ daara yëpp di ko teg si loxol sëriñ Njaga Mbay mu jàllale ko si mbooleem sëriñ daara yi nekk ci biir dëkk bi waaye nag di nuyu mbooleem ndey daara yi ñi nga xamante ñoo nekk si dëkk bi di ko teg ci loxo Zeynab soxna Zeynab Sall mu jaar lépp ci loxo day daar yëpp di leen nuyu sëñ naa Cheikhouna yaag sëñ Ablaye bi ngeen àndal di ñaan yàlla yàlla barke liggéey bi te lépp mu def ak jaamu yàlla buñ nam amin barke borom Tuubaa jërëjëf sëñ Ibrahima Dramé moom lañ fa yéenee waxtaanal euh, tey ji nag sëñ Ibrahima euh, yow bokk nga ci ñi nga xam si ñoo jiite raabita alxuraan fii ci diwaanu Njàmbur euh, ñu bëgg a xam raabita bi moom juddoom ak lan moo tax ñu taxawal ko ak lan moo nekk seen yilla waaw jërëjëf euh, raabita bi day mbootaay loo xamante ne moom moo tënk sëñ daara yi mu euh, ko sos si jamono yi deux mille deux mille deux mille un rek euh, li waraloon ñu sos ko tamit mhm. dañoo demoon ba yëg ni am na ay jafe-jafe yoo xamante ni manam sëñ daara yi ñuy tàmbali di jànkonteeg moom ci seen jëmmi bopp ak ay tuumaal yu leen di tuumaal ak xeex yoo xamante ñu koy xeex daara yi demoon nag loolu jamonoy sëñ Saaliwu la noonu ba loolu xaw ëpp jéggi dayoo ñu gis ni maanaam war boole suñuy doole jamono lañ sos bi ah, mën naa wax sax man mii di wax ak yow jafe-jafe yoo xamante ni amoon nañ ko fii ci Louga bi ci jëpp si wàllu daara ji bokkoon na ci li li indi RABRIK fii si dëkk bi maanaam RABRIK ko sabab mu ñëw fii si dëkk bi jafe-jafe ju ñu amoon ñun maanaam maanaam ci la jaare maanaam ñëw si dëkk waaye boo fekkoon na ñu sos ko ci Touba waaye tamit sos bi tamit du caageenu xëy na tuubaa lañ ko sosee waaye ña ko doon sos te muy ay sëñ daara laataa ñoo ko di sos ci ndigalal Sëriñ Saliou maanaam dañoo dem ci mbooleem kilifa diine boo xamante ni mi ngi fii senegal Sénégal ñu waxtaan ceeg moom mën naa laa wax ni sax gannaaw suñu Saaliwu maanaam sëñ Abdou Aziz al amin yal na suñu borom yokk leeram bokk na ci ki nga xamante ni moo njëkk jël alalam maanaam tàbbal ko ci liggéey bi ak ci xalaatam mu doon kuréel boo xamante ni tënkuwul ci maanaam tariqa mbooleem këru diine yi nga xam yi nga xam fii Sénégal man mii dem naa fa ànd ak maanaam kuréel bi maanaam ñu dem seeti kilifa bi am fa ndaje am fa ndaje tamit mm-hmm. ndaje boo xam ndajem ndajëb biro la moo xam jaasaan la mm-hmm. moo xam tiwaawan la moo xam mm-hmm. kawlax la moo xam canaba la maa ñoom ñëpp kilifa yooyu yëpp jamono sëñ Saal yi fi nekkoon ñoom ñëpp ñoo àndoon maanaam téel seen bopp maanaam raabita bi daara mag yi fi nekk tamit Sénégal moo xam kokki la moo xam Fass la moo xam ndar la ñoom ñoom ñëpp maanaam ñoom it maanaam ñoo ñooy ñooy ñi nga xamante ni boobu bi may wax ak yow ñooy kilifa yi nga xamante ni ñoo ñoo ñoo ŋànk maanaam raad lan mooy seen ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy maanaam euh, wattu daara wattu daara ak sàmm ko ak dox diggante sëñ daara ak daara yi maanaam si jafe-jafe yi nga xamante ni euh, ñu ngi ko doon jànkonteel loolu nag maanaam bari bari woon na ba ba dayo waaye loolu ak tamit maanaam ñoŋal liggéey bi nga xamante ni moom la sëñ daara yi jë war a def ci maanaam tuut tànk yi ci wàllu mokkal gi ci wàllu bind bi ci wàllu saytu bi ci wàllu yar gi maanaam nan nan lañuy ñuy defaat bu boole suñuy doole ba diggante yar xale bi ak jàngal ko ak maanaam li nga xam ne moo taxoon woy juróom indi ko nan la ñuy def ba boole suñu doole maanaam mu doon benn liggéey maanaam loolu bokkoon na ci li sos maanaam raabita bi macha allah sëñ Ibrahima Dramé ci ñu ngi leeralee taarixu raabita bi ak judduwaayam xam ne ci ay jafe-jafe ay taytam mu taxoon yéen ñi nga xam si yéene saati alxuraan ngeen demoon ci Serigne Salim Mbacke mm-hmm. jooyantal ko loolu mu ànd ceeg yéen ba ba loolu taxaw gannaaw loolu xam nga léegi tamit di man naam ni mboolem kilifa diine yi nga xam si ñu ngi ci réewum Sénégal ñu ngi ci ñu ngi si biir mm-hmm. nekkul loo xam si dafa féer ci ab teraxa gi demee noonu mm-hmm. waaye ñu bëgg a dikk ak yow ci ñaareelu laaj bi mooy ku ne xam ne ni alxuraan ak daara alxuraan ni muy demee mm-hmm. xëy na ku ci nekk tey suñu borom def na bu fekkente am na lim ci ndongo ak yooyu wala mu am barab bu ko mën a defee dana fa mën a wut ab sanc ab daaram taxawal ko euh, raabita bi nag dafa séq ay ay ay ay sëriñu daara ko ñu bëgg a xam ki ci bëgg a bi moom moom day ñetti ndongaam ak am benn néegam rek ñëw bokk ci wala daa am ay sabab yoo xam si moom mooy tax ma cee bokk waaw loolu nag euh, raabita bi maanaam ba jóg bokk na ci li a jóg bépp sëñ daara boo xam ne ñu ci Sénégal ak foo mën a nekk ak foo mën a bokk ak naan waay boo mën a bokk rek maanaam mu mu mu mu boole la ci boppam mu fekk la fa nga nekk maanaam boole la ci boppam loolu nag ah, suñu boroom defal defaloon nañ ci tawféex ndax bokk na ci bokk na ci liggéeyam ah, jëmmi raabita bi ci boppam ah, li nga xamante ne maanaam moo ko tax a jóg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ak ñi ko sos koo ci gis kenn koo ci gis ku nekk maanaam sëñ daara la boo xamante ne maanaam dafa toog ci daaraam di jàngale nga xamante ne maanaam seen liggéey mi ngi tàmbalee ci maanaam sëñ daara bi ak yi nga xamante ne maanaam moo ko moo ko moo ko moom la war a am ci réew mi mm-hmm. ak tamit ak yi nga xamante ne moom la daara war a am ci réew mi maanaam nan la ñuy def maanaam ba ak yooyu maanaam mu yegg ci ci maanaam seen daara mm-hmm. loolu maanaam moo doon moo moo doon liggéey mm-hmm. bi nga xamante ne loolu tamit gënoon naa gënoon naa tax gënoon naa tax kilifa yi fi nekkoon ci jamono sëñ Saliou kilifa yi fi nekkoon bi maanaam borom di di di xalif yi mm-hmm. ñoom ñëpp dañoo jàppe woon rabita bi maanaam seen alali bopp mm-hmm. dañ ko bi ndax lan mm-hmm. ndax ña nga xamante ni ñoo ko taxawal dox ko ba mu sotti ñoom ñëpp ku nekk day génn ci daara dem doxi loolu maanaam ñëwaat maanaam loolu loolu mooy loolu moom moom maanaam euh, moo doon mooy mooy ci euh. waaw léegi xam naa ni euh, am na beneen façon raabita nag day mel ni bu am bu ñuy wax itixaat. itixaat nag moom day mel ni. Euh, xam naa boo ñu mënee leeral li ko wuteek euh, raabita bi ndax itixaat day mel ni euh, ñoom bokk nañ ci ñi gën a jege. lu dul bu dee nag raabita bi yéen moom day mel ni deen xaw a. xaw a sore ak état demee noonu. waaw ah, boo ñu mënee leeral ci. waaw loolu loolu moom laa doon bëgg a mm-hmm. ndax daanaka itixaat bi. Mm-hmm. raabita bi maanaam benn ndax ñoom ñëpp njabootu lislaam njabootu alquran léegi nag raabita bi dafay dafa doon koo xamante ni ki muy ki muy jël mooy ab sëñ daara direct ab sëñ daara direct maanaam nga ni maanaam bu mën a nekk nee naa la ak tarixa mën a bokk euh, am na ñu ko si jiitu woon ñoo xamante ni sax maanaam mën nañu wax maanaam bokkuñu maanaam si tarixa mu ngi di loolu mooy tegtale ni maanaam amul benn tariixa bu ñu ko moomale maanaam benn tam kon maanaam raabita bi képp ku yor daara rek mën nga ci adhéré bu fekkee ittihaad bi nag moom ay association maanaam moom lay tënk raabi raabita bi nag boo gisee mu mu am dayo dafay dafa dafa dafa njëkkoon a jóg ittihaad bi ba noppi doon benn association ci biir ittihaad bi waaye nag doon association bu ci am doole nag mm-hmm. bu ca yaatal lool boo xamante ni maanaam daanaka dajoon na maanaam Sénégal ndax am na kilifa yoo xamante ni sax bi ñu sas ittihaad bi dañ ñoom dañ ni maanaam lan lan lan lan lan euh, lu tax ñoo ñu koy ñu koy sos te raabita bi nekk fi te itam te daj na Sénégal ndax daanaka raabita bi maanaam maanaam daj na Sénégal waaye ittihaad bi li ko wutale raabita bi ittihaad moom ay association la composé raabita bi nag ay daara waaw ah, loolu mooy li nga xam si moom moo tàqale itixaat bi ak ak rabita bi waaye ba tey ñu des foofu rek ndax ku ne xam ne ni rabita bi ñoom daa mel ni ña nga sa cosaan la ñoom mm-hmm. ñoom ña nga ca jéngi yaag mm-hmm. ca euh, mbindum kaami baag mm-hmm. euh, naka noonu ca ca bay gaag ca ca kii yee dem toolaag yi demee noonu maam ñu bëgg a xam tamit ndax rabita bi comme ni nga ko waxee gannaaw association la waaye tamit dafa mel ni moom euh, li ci mën ci ay ONG ak yooyu nga xam si ñaari doxin yi day mel lu xaw a wute loolu nag moom bu ñu bokkee ci benn mbir ndax seen jëflante diggante moom dana xaw a kii. waaw yàlla dafa dogal sax. Mhm. maanaam moom rabita bi. Mhm. comme noonu ma la ko waxee. maam noonu la tëddee. Mhm. ittihaad bi tamit noonu ma la ko waxee ay sëñ daara ñoo ci nekk. waaye nag ndegam yàlla dafa dogal bi ñu koy sos. dañ koo jaarale ci maanaam état bi. maanaam région bu ñu dem gouverneur la. maanaam moo mooy mooy mooy mooy mooy taxaw mooy sélectionné bureau ba moo koy taxawal moo koy sàmm ba quatorze régions yëpp maanaam ma département yi ñëw mm-hmm. département boo dem am nañ fi représenté mm-hmm. ah, naka noonu ba ci am na région département yoo xam ne commune yëpp mm-hmm. maanaam am nañu maanaam ay représentant léegi nag ñoom jaxasoo gi ak ah, dana amal njëriñ mën naa amal njëriñ rabita bi ci génn rek rabita bi tamit mën naa amal njëriñ ittihaadul maanaam ci génn ndax kii maanaam mi ngi ci tool bi rabita bi moom da nga da ngay naan ngi ci tool bi maanaam mi ngi ci tool bi tey tamit maanaam lépp loo xamante ni ab sëñ daara séentu nañ ko si si ab ci ab sëñ daara ñoom ña nga ci waaye ittihaad yi tamit mën naa mën naa féete rabita bi ci génn wet te mooy lépp loo xamante ni maanaam ah, ci wàllu wàllu wàll état la féete mhm. maanaam ci ci ci yéeg ak wàcc ci mhm. dem ak ñëw mhm. ak ci lijjanti maanaam ñoom ñoo ci gën a màcc ñoom ñoo ci ñoom ñoom ci gën a màcc kon ñoom ñoom ñaar maanaam seen seen seen seen seen taxawaay noonu la. kon kon su ma la su ma la déggee day mel ni. yéen war a dem ginnaaw état. ñoom ñoo muñ leen tey ñoom ñoo leen nekkal fële. lépp loo xam si daal seen diggante ak état waaye it xaat ñoo leen koy doxal. yéen nag teewul yéen a des ci wàllum. wàll wàllum jéngi maag yooyu noonu waaw macha allah sëñ kii sëñ Ibrahima Dramé mbokk yi xam si teew teewlu seen eh, télévision Louga TV la télévision lougatoise tey jii ñu ngi dara Ibrahima Dramé mu nekk membre ci nga xam si moom mooy waa Rabita Alxuraan fii ci diwaanu diwaanu Njàmbur mi mbooloo mi nga xam si dañoo tënku di saytu daara alxuraan yi di dox seen yitte lépp loo xam si rek xëy na eh, ndongo yi ndax noonu eh, waa kër waa ahlul alxuraan. Hmm. moom moom moom la ñuy moom la ñuy yittewoo. Hmm. Euh, yéen mbaa état bi reconnaître na leen. wala yéen itixaat bi moo leen yóbbaale ci côté boobu am ngeen récépissé gi demee noonu wala. waaw bu wér rabita bi. Hmm. am na récépissé. maanaam bu bu bu yàgg boo xamante ne maanaam état bi reconnaître na ko. maanaam tey tamit. lépp loo xamante état da koy def tamit. maanaam ñoom dañ koy di leen ci di leen ci di leen ci di leen ci dugal maanaam dañ dana si déglu seen xalaat dana leen laaj seen xalaat dana si déglu seen xalaat euh, waaye tamit comme li nga wax léegi am na maanaam baatu maanaam comme maanaam euh, ñu ngi des si jéngi beeg yooyu xam nga jéngi tamit euh, xam naa ne foofu danañ ñëw tuuti ndax du caa bi day ñëw si daara ji rek ñu jéng ko maanaam jéng aw xeet la boo xamante ni ci xeetu maanaam luy jàllale. dongo daara bi maanaam ba mu jàll. ndax daara dongo daara bi day ñëw day yenn saa yi day gag. day gag maanaam day am ay gàllankoor. ci wàllu yoo xamante ni benn ay xalaat yu muy xalaat. ci li mu bàyyi gannaaw. xalaat yu muy xalaat ci mettitu daara bi. ak yu demee noonu. wala yeex naa ñëw daara ba indaale ay xalaati boppam. léegi nag xalaati boppam yooyu fokk mu jéem ko maanaam utiliser. benn muy daw wala muy. ñu yóbbaale ay xale maanaam ñi daw wala muy taxawaalu ji wala yu demee noonu loolu nag maanaam jéng dafa bekk ci solution yi nga xamante ne daara da ko daan jëfandikoo maanaam ngir euh, jéggil xale bi maanaam maanaam jafe-jafe yooyu nga xamante ni saa yu seen noppee rek saa yu xale ba noppee ca la taxoon ñu koy jéng rek ca saa sa maanaam ko jéng loolu la koy tegtal nee naa la xale bi du ñëw si daara ji ñu jéng ko ndax bu fekkee téeméeri donga moo nekk si daara ji kenn lañ ciy jéng wala ñaar wala ñett maanaam te jéng bañ koy jéng maanaam du caageenu maanaam ak coxor da ko lal wala wala xeen déedéet maanaam xale bi daa nekk si ay situation yoo xamante ni war nañ koo jàppale mu jéng ko mu jéggi ko te la sëñ soy boo xoon ah, mu ni maanaam ñoo ñi jëng buñ ci su suñu noppee si ñoom kenn dootu leen jëng kon loolu moo su moo moo macha allah jërëjëf kon ni nga ko leeralee xëy na loolu tamit nekkoon na loo sox lu soxal ñu bari mm-hmm. ndax da ngay xëy naa dara ci ñëw léegi nii ci coow la ba fa amee mm-hmm. fii ci diwaanu diwaanu Njàmbur ak sëriñ Xaadim Gey mm-hmm. da ngay dégg ñu bari naan euh, sëriñ daara yi war ñëw dégg xale yeeg mbir euh, mi ne da nga ko da nga ko kii waaw loolu loolu loolu moom loolu ndax sëñ Saliou radiyallahu anhu bi nga xamante ne jamono yooyu jamono jamonoom xaalis am na ay coow yu bari yu si amoon. Mm-hmm. maanaam moom bi ñu ko waxee dañu moom maanaam moom bi bi bi état bi ñëwee di ko di su moom ngir mu wax ci. Mm-hmm. dañu moom maanaam du ko tere. du ko def du ko def. Mm-hmm. waaye du ko du ko maanaam ngir gis gis na maanaam njëriñ lu mu def te gisul loraange lu mu def. waaye nag moom nag def ko moom du ko def. waaye du moom ay ay doon def ko. waaw moom du ko def kon sëñ sëñ sëñ Ibrahima dañuy ñëw ci eh, suñu beneen laaj muy raabita bi ni nga ko waxee eh, dëgg la loolu nag euh, nekk na loo xam si dafa homogène ni ñu koy waxee euh, dajale na ay ay ay xeet yu bari ay ay ay kër diine yu bari mm-hmm. waaye ñu gis ni yoonu mu da cee am doole lool sax da cee am doole lool ndax euh, coow yu mujj yi wax naa ko sànq suñu xaalim bi jafe-jafem yooyu ak yu ci bëree bëri dañuy gis ni xale bi dina daal mu sëñ Mountakha Mbacké li mu ciy intervenir day day dafa dafa kii lool dafay bëri lool mm-hmm. ñu bëgg xam loolu sabab bi lan moo ko lan moo ko waral te day mel ni chaise rapide bi day mel ni mu ngi Tuubaa moom waaw xam nga lépp loo gis dafa am sabab mm-hmm. maanaam yàlla mënoon naa dogal mhm. bi yi nga xamante ne moom ngay wax tey bañ koy sos mhm. maanaam ña ko sos mhm. maanaam dëkk dëkk gën a ëppee Tiwaawan wala ñu gën a ëppee Njaasaan wala ñu gën a ëppee Canaba wala ñu gën a ëppee yeneen yeneen dëkk yi yeneen dëkk diine yi nga xamante ne ñu si biir waaye yàlla dafa dogal bañ koy sos maanaam euh, ña ko ña ci ëpp ak ña ko sos dañoo dëkk Tuubaa waaye tamit ba ñu jógee di ko sos noonu ma la wax woon léegi maanaam dañoo jàpp ni maanaam alxuraan moom maanaam maanaam euh, téere la boo xamante ni ñëpp la tënk ñëpp la ëmb ci ndigalu sëñ Saaliw nee naa la maanaam ci la ci la ñu jógee maanaam dem ci maanaam mboolem kilifa diine boo xamante ni nekk na ci dëkk nga xamante ni siège ba Tuubaa la nekk maanaam xëy doole ji tamit fa la ëppee mm-hmm. loolu loolu nag maanaam mbir suñu borom la nga xamante ne maanaam lépp loo lépp loo gis day am sabab sabab boobee nag maanaam mooy jox mbir moomee maanaam taxawaay ba nga xamante ne maanaam moom la am waaw loolu moo waral maanaam Touba maanaam euh, gën a gën a am doole ci ci ci ci ci raabita bi na si loo xamante ni tamit maanaam mbiru suñu borom la maanaam mbiru suñu borom la ndax alxuraan euh, alxuraan moom maanaam mag ñëpp ku nekk da nga sa bay sa waar waaye ku nekk waar wa ca bay rek maanaam maanaam moom moom ngay euh, waaru toll na la ca suñu borom di xàllal maanaam maanaam maanaam mbir mi noonu mbir mi noonu kon suñ la mënee tënk rek day mel ni euh, sos gi mu sosoo Touba mm-hmm. ak xëy na euh, ca loxo yam jaar mm-hmm. moo taxoon xëy daanaka mbir mi xaw a demee nii mm-hmm. waaye bëggoon nañoo xam ndax yéen est-ce que tamit Touba ku ne xam ne dafa bari ay daara alxuraan est-ce loolu tamit bokk ci waaw loolu maanaam maanaam fii ne loolu mën nañu wax ci la bopp ndax bu fekkee dañuy lim dëkk yi ëpp daara mën nañu wax seen mën ndax fi ne ñu ngi wax junni daara sax waaye junni daara itam maanaam maanaam ëpp na ko léegi loolu maanaam mën na caa doon maanaam maanaam tamit tamit lu ëpp ci kilifa yi nga xamante ne maanaam ñoo ko gànk ñoom it maanaam dëkkee Touba ah, ndax maanaam bi nga xamante ni taxawal nañ ko sëñ Bachir mu nga xamante ni sëñ Bachir mu sëñ mu sëñ ak euh, sëñ Bachir mu sëñ Abibu maanaam ñooñu maanaam bokk nañ ci kilifa yi nga xamante ni maanaam ñoo ko ñoo ñoo ko ñoo ko ŋànk foofu gannaaw bi sëñ Mamoor mu sëñ Fàll mi nga xamante ni moom la sëñ bi dénk wàllu alxuraan ak wàllu daara maanaam foofu ci ko waaye ñoom bañ leen jëlee tamit noonu la ñu jëlaale kilifa yi nga xamante ni maanaam ñoo nekk ci biir réew mi sëñ Abdou Aziz Touré sëñ Mohsin Diouf ci Kees sëñ naat Naarloo ci Kokki fii Thierno Bachir mii maanaam boo ci ci président d'honneur yi maanaam ci la bokkoon. fii ci Louga maanaam gis nga daar yi ni mu demee ay këri daara yi ay dañoo séddlu ko ci ay këri diine. waaye këri diine yoo fi dem. moo xam sëñ daar yi mag yi nekk si dëkk bi ñëpp. ñooñu ñëpp maanaam ci rabita bi lañ bokk. kon loolu moo lay tegtale ni. maanaam tënkuwul ci tarixa mhm. waaye maanaam suñu borom maanaam moo moo moo dogal mhm. maanaam tudde gi tudd tuubaa mhm. maanaam nekk nga siège ba nekk foofu ak tamit maanaam liggéey bi lu mu gën a yaatoo foofu maanaam loolu moo waral looloo ko waral waaye gis nañ ni rabita bi dafa am ay représentant lu ci mel ni tey su ma jumul fukki région yi ak ñeent boo dem bu ne day mel ni rabita bi am na ñu fa teewal si bureau bi moom ni ñu koy lu ñuy fal la wala dañuy tabb ay nit eh, teg leen noonu waaw léegi maanaam loolu tamit daa doon lu lu lu lu lu am solo. Mhm. ndax dana doon dana doon bureau bureau boo xamante ni maanaam ni ñu baaxoo xamee bureau. mu am président am secrétaire am trésorier ak ak ak yu demee noonu. Mhm. waaye nag la ko jiitu maanaam mooy liggéey alxuraan. Mhm. maanaam maanaam bureau bi moom day nekk par la forme noonu rek. nga xamante ne maanaam mënut a ñàkk waaye. maanaam la ko jiitu la ko lal dëgg dëgg dëgg mooy ñoo xamante ni dañuy volonté wu maanaam pour maanaam liggéey alxuraan waaye nag day am bureau bureau boo xamante ni maanaam dañuy ñëw seet ñi nga xamante ni maanaam ñoo fi nekk ñëpp seet ñi nga xamante ni maanaam ñoo ko bëgg ñoo ñoo ko bëgg jiite wala bëgg nañ koo jiite maanaam ñu ñu ñu ñu def ñu tànn seen biir mm-hmm. tànn boo xamante ni ni ñu baaxoo tànne mm-hmm. maanaam ku war a jiitu ku mm-hmm. war a jiitu loo xamante moom lañu jiital ñu ñu jiital ko ki nga xam ne moom xanaa dootuñu ko fooli tam wala daa am ab lii ah, ah kay ah, maanaam maanaam loolu dana dana dana am ay ay ay diggante ma juróomi at yoo xamante ni bu ko yeesee dañ ko yeeslaat waaye nag boo gisee maanaam boo ña ca nekkoon ca ca njëlbéen ga daanaka ñoo ci nekk. Mm-hmm. maanaam mooy li ma lay wax. Mm-hmm. daa doon liggéey boo xamante ne xëy na bureau da bureau dana dana am bureau. Mm-hmm. ci forme bi rek. waaye liggéeyal alxuraan. maanaam maanaam maanaam maanaam moo ko lool ak volonté maanaam affaire maanaam mbir mbiru volonté la. mbiru volonté la. waaye du du du li li li li li li li sëñ Moustapha Sall mosoon wax. maanaam maanaam xilaafa yi kenn bëggul la. maanaam kenn bëggul maanaam maanaam ku nekk. maanaam maanaam. yéene nga maanaam sa morom jiitu ko te ka ko jiite tamit xam nga ni ak coono képp maanaam la cee dëj waaw waaye du du du loo xamante ni mm-hmm. maanaam lu ñu lu ñu xëccoo la ak lu ñu mm-hmm. xëccoo la macha allah sa Ibrahima Dóobe kon day mel ni leeral moom eh, ñi nga xam si ñi ngi teewlu jotaay bi danga xam si la ci ay jàngat yu bari ci eh, rabita bi ni muy doxee ku ci bëgg a bokk ak eh, seen cosaan nekk ak lépp loo xam si séq nañ ko ak yéen yéen yéen yeneen sëriñu daara yi kon sëñ Ibrahima Dóobe fi ñuy dikk ak yow rek mooy Euh, ku ne xam ne ni jamono ji ñu nekk muy jamonoy mbas euh, muy covid 19 mu lëmbe àdduna euh, di di law ci àdduna di law ci jamono ba ba ci fii ñu naan ci réewum Sénégal ñu xam nag nii ba mu fi jukkee ba léegi état bi am na ay ay charte ay décision yoo xam si xëy na bari na ay fànn waaye li nga xam si moom mooy ci li ngeen yëngu muy daara alxuraan di ko xaw a di ko xaw a xaw a laal loolu sax mm-hmm. bokk na ci ay yu Euh, fan yii rek dangay gis ay oto yoo xam si euh, préfet yi ñoo xëy dawal ñëw ba ca daara ja mm-hmm. wut seen i liste ndongo yi seen turu ak seen dëkk mm-hmm. ci bëgg ñu yóbbu laa gi demee noonu mm-hmm. loolu noonu moom yéen noonu ko noonu noonu ko dundee waa xanaa ni ko ñëpp ni ko ñëpp di dund rek maanaam euh, xam nga maanaam mbas moom ak feebar ay nattu ak balaa maanaam suñu boroom moo koy teg moo koy tegee léegi nag maanaam euh, ab jullit mm-hmm. maanaam lépp lu ñëw dafa war am appareil boo xamante ni maanaam ci la koy seet mm-hmm. ak nattukaay yoo xamante ni maanaam suñu borom jox na ko ko mm-hmm. maanaam diineem jox na ko ko mu war ko ko natt waaye ñun li nga xamante ni maanaam mooy suñu gàllankoor te mooy suñu nattu mooy dañoo doon ay jullit waaye nattukaay bi nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy nattee ak seetukaay yi ñuy seet ak appareil yi nga xam ne moom la ñuy seete suñu mbir maanaam dafa dëppoowut ak maanaam maanaam suñu diine mhm. loolu nag maanaam maanaam nattu la ci ci ci ci si njiit yi nga xamante ni mhm. ñoo ñu yilif mhm. te loolu maanaam solo alayhi wasallam dafa dafa waxoon ni bu suñu borom nattoo ci njiit yoo xamante ni meluñu nañu war a mel ngeen muñ te xaar te xaar saa maanaam loolu maanaam ndax ndax ndax tër leen yëpp maanaam maanaam maanaam dogal suñu borom la ñun suñu gis suñ sama gis-gis ah, mbas mi maanaam gérer bi nga xamante ne noonu la ko état bi gérer. Mhm. maanaam sama gis-gis maanaam dafa teguwul ci yoon. Mhm. maanaam teguwul si yoon ndax dafa waroon a xam ni maanaam nañ na nga xamante ne noonu la ñuy war a noonu noonu noonu appareil ba koy seet. Mhm. ci Europe. bokkut ak appareil bi ko war a seet maanaam fii ci. fii fii ci Sénégal. waaw dañoo waroon a xool maanaam ñun suñu tolluwaay. ak suñu dund. ak suñu doxalin ak suñu gëm-gëm maanaam fan la jëm maanaam ñun nattuñu foofa. ko defee. maanaam état bi dana am li mu bëgg maanaam ñu nit danañu mën a dékku maanaam danañu mën a maanaam euh, mbas mi ndax mbas moom moo li ma wax feebar la rek feebar tamit duñ ko ragal waaye que feebar ba jógee ci moom kuy sos feebar moom la ñu war a ragal muy suñu borom mm-hmm. teewul nag ndegam état bi nee na nañ nañ nañ nañ nañ nañ nañ moytu maanaam ci wàllu loolu ci wàllu santé mm-hmm. maanaam danañu moytu mm-hmm. rawatee nag suñuy kilifa digal ñu ko mm-hmm. danañu moytu danañu raxasu ndax yaakaar naa daara joo dem la ca nekk ci ay ay ay madaar ak la ca nekk ay eau ak la ca nekk ci yu ñuy war a yoo xamante ni jumtukaay set la la ca daara yi am maanaam yeneen daara amu ko beneen kër amu ko ci loolu nag ñu ngi sant taxawaayu maanaam dëkk bi taxawaayu ndeyu daara yi léegi nag lislaam moom mhm. maanaam mbir mu nekk mhm. dafa am maanaam lu ca laaj mhm. lislaam bëggul bëggul ifraat maanaam bëggul maanaam nga sàggan ba loo waroon a def dañ ko def bëggul tax tamit maanaam nga ëppal bala nga waroon def maanaam nga yokk sa maanaam la ci bokkul dafa bëgg maanaam umatan wasatan waaw nga digg doomu maanaam nekk sa digg mhm. bu ko defee loolu foofu nag la ñu waroon foofu la doon xaar état bi mu xam ni bu dee ñi mu jëflante na xam ne ñi jëf ni ñi ëpp bu ñëpp ñëpp du julli tamit 95 mhm. yi maanaam ñoom ñëpp ay julli lañ mhm. maanaam mu xool lan lay lan lan lay doxalee ñoom waaye maanaam nii mu gérer nii mu gérer situation bi métti na ci njaboot gi métti na si njaboot gi ndax da ngay gis koo xamante ni maanaam amoon na am na xale boo xamante ni ñaar fukki junni la am mm-hmm. bàjjanam jox ko ñaar fukki junni mm-hmm. maanaam mu mu mu mu mu mu mu jóge jógee fee la mu yoroon mu jox ko mm-hmm. mu lijjanti ba am ci ab jakarta nga xañ ko jakarta boobu te lépp lu mu ci am maanaam moom moo ko jox boppam xam nga maanaam maam état bi daa waroon a taxaw xale yi ci wàll liggéey. Mm-hmm. waaye taxawul xale yi ci wàllu liggéey bu noppi lu xale yi am maanaam moom am na ci. moom moom moom amaat ci. nga gis koo xamante ni daal di jënd am watiiram. Mm-hmm. maanaam ñëw du du du mënta liggéey. Mm-hmm. gis koo xamante ni daal di jënd ba am taxi maanaam moom mënta liggéey. gis koo xamante ni da fukki fukki junni la yoroon dem ca marché ba. li jënd ba am place. ñoom ñogal. ñu ñëw xëy benn bis. buub lépp ci tracteur loolu tubaab bi ñu xamante ni moom la ñuy moom la ñuy roy sax mm-hmm. tubaab bi def noonu loolu moom tubaab bi ëppale na ko boppam mm-hmm. waaye ñun nag ñun xam ñu suñu bopp ñun xam ñàkk xam suñu bopp mm-hmm. moo tax nga fekk ay nit ñoo xam ne dañoo yor seen bagage maanaam li sa ñoom ñoom yi sàccuñu fenuñu defuñu dara maanaam nga xëy maanaam indi tracteur buub la ñu yoroon loolu moom maanaam xel mënu ko nangu maanaam civisme nangu ko xel nangu ko maanaam tamit xam-xam tamit dàq na ko. Mm, bu dee bu dee ci daara yi alxuraan yi. lii nag daara yi yi. Mm-hmm. loolu loolu. Mm-hmm. daara yi yi maanaam dañ cee jël seen wàll. Mm-hmm. seen wàll ji ñu ci jël. mooy maanaam dafa mel ni ñoom dañuy dañuy dàq garaar. maanaam doxaale seen soxla. maanaam loolu. maanaam maanaam maanaam maanaam loolu maanaam maanaam daal say daara yi alxuraan yi. lii problème yii ma la wax. dañ koy dund booleeg seen problème boobu. te mooy maanaam. Euh, dañuy limaale yoo xamante ni mm-hmm. dañ koy limaale si daara te bokku si daara mm-hmm. ndax yalwaan bi nga gis mm-hmm. quatre-vingt quatre-vingt-quinze pour cent maanaam du daara te cinq cinq boobu cinq pour cent boobu ci des maanaam daara ji koy def def ko maanaam ci coobare boppam amul benn sëñ daara boo xamante ni da ko gis maanaam mu bëgg ab dongaam yalwaan waaye amul ben dong booy gis mu yelwan te yalwaan maanaam gënal ko mhm. déedéet mhm. loolu li ma jox misaal mhm. gis nga dong bu yalwaan dëkk sanc bi wala mu mana Algérie bu dee yalwaan maanaam bu dëkkee sanc ba Algérie la yalwaan parce que ëppale mana ëppale mana boppam maanaam génn di ànd xal-xal yi mu mana maanaam mu yalwaan mana seen biir te yalwaan boobee mu daan yalwaan lañ sa jublu maanaam mooy tàggat xale bi maanaam ci mu mën yor boppam yalwaan ba yalwaan dëgg dëgg dëgg lam hmm. taxoon mag ñi di ko di ko def hmm. ba ba jamono tey jii ñi di ko def te daara tax hmm. maanaam ñañ ñañ koy defloo fi ne bu ñu génnoon ànd ak yow mi nga xamante ni maanaam mosoo see jaar ngeen jóge si dëkk dem si dëkk ñoom ñoo lay yor te dafa jaadu sax maanaam ci ci dafa rafet sax ci lislaam yiw bi ci nekk eh, yow nga dëkk ak daara alxuraan nga waral tibb di fa yóbbu ñoom ñoo bu di ko jeex na <laughs> maanaam léegi nag waxuma la yow nga tibb dafa yóbbaay dafay mujj sax léegi yow mm-hmm. maanaam ñoom ñoo la waroon tibbal la indil maanaam ñoom déedéet ñoom ñoo koy laaj ah. ñoom ñoo la koy laaj mm-hmm. maanaam xam nga école bi mm-hmm. da ngay bi dafa wut école ñaari ñaari ñaari sénégalais la sénégalais bi wutal na ko école établissement bu baax wutal ko ku koy jàngal di ko fay di ko fay mhm. yenn saa yi sax wutal ko oto bu koy yóbbu mhm. ak ah, di ko indi mhm. beneen sëñ beneen beneen beneen sénégalais bi nag ko yow sa yoon nekkul sama yoon nekkul ci yow kon koku lumurade lu mu am lu mu war a def yow maanaam sa yoon wër seen def ndegam sa yoon nekkul maanaam koo yorut waroo koo yar ndegam moom yoruñu maanaam waru ñoo yar bu demee ba di bëgg ñoo yar laaj ñu su leen bëgg yar leen jaaral bu ko ndax yalwaan bi lii ma la ko mi ñi koy def maanaam bëgguñu ko tey tamit saa yu ñu amee solution maanaam dañ koy bàyyi ki ne sëñ daar bu ci am solution maanaam yalwaan te say yow nga gone daan yalwaan maanaam danga koy bàyyi ndax yow mi koy def bëggoo ko waaye nag ñu xam ni jeexagul yalwaan bi na leen wóor ni maanaam jeexagul ndax programme yi ma gis maanaam ay juróomi saako ñetti saako ak fukki litre diwlin loolu taxul maanaam nit waxuma la sëñ daara sax hmm. waaye sëñ ñi nga xam ne dañu fonctionnaire yi nekk seen kër wala wala wala population bi nekk seen kër hmm. maanaam loolu sax téyewu leen waxantuma la ak maanaam ab sëñ daara hmm. xam naa xam naa dana ci dana ci dikkaat mooy ci jamono ji ku ne xam ne ni ñu bari ñu ngi song euh, daara yi di wax ñu ngeen di dimbali xam naa loolu dana ci dana ci ñëw ak ci daal tamit waaye comme jafe-jafe yi nga xam si leeral nga ko ci ni ni nguur gi doxalee ci jëmale ci daara yi mu xaw a metti loolu ndax yéen ñi nga xam si yéen a jiite waa waa rabita bi ndax yéen lu jiitu loolu defal nga ay ay proposition maanaam gaaral état bi ni ko lii kat jàpp na ni bu ñu ko doxee liggéey bi du taxaw ba pare te li ñu bëgg daan ko am ndax yéen loolu liggéey boobu jotu ngeen koo def xam nga proposition boobu maanaam xam nga jëf mu ëpp doole wax xam nga maanaam daara kañ la fi daara moo fi jiitu hmm. moo fi jiitu maanaam nasaraan bi. Mhm. moo ko école école français école école daara maanaam moo ko jiitu. Mhm. damay jël fu gàtt rek. Mhm. jël na naa ngay seet ku mel ne euh, Cheikh Omar radiyallahu anhu. Cheikh Omar Foutiyou Tall. jàll si ba Cheikh Khadim jàll si ba El jàll si ba ci maanaam. mag ñu baax ñu fi nekkoon. maanaam booba ba tey bu fekkee maanaam euh, état bi lenn loo xamante ne maanaam mën na koo yëkkati. maanaam ni lii man maa ko defal daal loolu ay établissement yoo xam ne tabax na ko te yéegagul sax mhm. ñu koy daal ñu koy tudde ay daara moderne mhm. kon xam nga ni kon kooku amagul programme bu defal daara dara mhm. waaye nag da ngay xool daara moom lan la defal boppam ak lan la defal maanaam Sénégal koo xamante ñii mën a tuddal ñëpp mhm. produit wu daara lañ mhm. ñii fi nekk ci ci ci ay xalif généraux mhm. produit wu daara lañ ñi fi nekk ci nga xamante ni ñooy commerçant yi gën a mag ci Sénégal ay produit wu daara lañ léegi kon maanaam daara la mu defal Sénégal moom kenn dootu ko nattable léegi nag daara tamit lu mu defal boppam foo fi dem daara joo fi dem maanaam borom daara ja moom moom pàkk ba moom moom bu dee sàkket la lu lu lu daara ji ñàng ñàng ñàng moo ko moom. Mm-hmm. lu daara ji rafet rafet rafet rafet moo ko moom. Mm-hmm. maanaam tey tamit kenn mësta dem li li li nga xamante ne maanaam abri provisoire lañ ko wax xaw ma. Mm-hmm. maanaam li ci état bi am. daara yi amuñu ko ci. te daara yi ñooy defal seen bopp. kon kay. loolu maanaam maanaam sëñ daara yi di di réclamer. lan leen lan leen leen état bi war defal. Mhm. ñoom dañ koo jëf. dañ koo jëf waaw dañ jëf la dañ koo jëf kon xam naa ni macha allah leer na lool te ci tontu yi xam naa li ñuy xaw a dese ci ay waxtu moo moo xaw a néew. Hmm. xam naa dañ koy dañuy gaaw rek kon tënk ko. Hmm. xam naa laaj bi li ñuy laaj rek mooy comme ni ñu ko waxee sànq jamono ji bokk na ci euh, jamono ji gën a doy waar ci li ngeen di dund. Hmm. ñu bëgg a xam maam wàllum wàllum euh, ndimbal gi euh, jamono yi ñan ngeen ëpp ñuy yoo xam ci ay jëm wala ay association jàpp ngeen ni ñoo leen gën a dimbali ci réewum Sénégal ak fii ci diwaanu Louga si ñaari barab yooyu. xam nga maanaam maanaam li jamono ji ñu nekk. Mhm. ñun li ñuy dund. Mhm. li ñuy dund jamono ji ñu nekk. Mhm. ci ci li ñuy tuddee mbas mi. maanaam naka jekk ba daara sosoo ba tey moom la ñuy dund. ndimbal li ngay dégg. maanaam xam nga doon yi nit. maanaam ndax bu fekkee maanaam mbir mi dafa am. ku mel ni monsieur le maire. Mhm. génn cinq cinq tonnes mhm. jox ñu mhm. xam nga loolu nit ki maanaam teraanga du tuuti teraanga maanaam du tuuti maanaam moo moo posone yow maanaam loolu cinq cinq tonnes yooyu téeméeri saaku la téeméeri saaku maanaam booba ba tey nga xamante ne war naa mat ñaari weer <laughs> ndax ndax loolu am na njëriñ <laughs> bu loolu weer xam waaye kon xam kon kooku doo mën mënoo wax ni dimbaliwum tey tamit yàlla def na moom ñi ko fi nekkal ñun lépp lu ñu ne wax dëgg yàlla ñun dañ cay ànd ak ñun ñu fi nekkal monsieur ndax ñun ñun ay dongee daara lañ li sëñ Abdou Ahad waxoon ku ñu defal lu baax ñu sant ko waaye ku ñu defal lu baax tamit maanaam ñu noppi ñu maandu ci loolu benn ndimbal la ndimbal loolu moom lañ fi ko bi ci des soxna Aminta Mbengue Ndiaye maanaam moom moo moo fi indi ndimbal te ndimbal la mu fi indi mu doon ndimbal lu am solo nag loo xamante ni maanaam bu ko ay moroomam defoon mm-hmm. maanaam lii moom wax dëgg yàlla dana baax mm-hmm. ndax la ci gën a am solo nag mm-hmm. maanaam booliwu ci coow booliwu ci waaye ñun sëñ daara ya mu dem da war a mat juróom-ñaar fukki sëñ daara jàpp juróom-ñetti fukk juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar jàpp juróom-ñaar juróom juróom-ñetti fukk maanaam dem na ci ñoom te ña mu yegg si si ñoom yëg nañ ni am na ndimbalu yegg si si ñoom bo loolee tamit moom moo dafa laaj ñu sélectionnel ko ay sëñ daara mm-hmm. bañ ko sélectionné ay sëñ daara moom lañ ko jox mm-hmm. moo moo wool boppam mm-hmm. moo joxee boppam ci teewaay boppam ba ca des njabootu alaaj jiine mbay ñu joxe ñaari million ñaari million yooyu euh, ñu jënde ko dëwlin leen la mu doon xaalis téeméeri sëñ daar ak ñaar téeméeri sëñ daara la ak ñaar fukk mm-hmm. ku nekk jox nañ ko benn dix mille mm-hmm. maanaam ak benn litre d'eau ak ñun ñi nga xam ñoo doon séddale mm-hmm. la maire bi doon joxe amuñu ca am na si ñoo xam ne li waa Kër Baye Jili joxe maanaam ñun ñu doon séddale maanaam amuñu ci. kon daal séddale bi ci mën a dégg mooy jaar na yoon daal. waaw xam nga xam nga xam nga jaar na yoon. maanaam lu ci nekk. maanaam nit ki moom li may faral di wax rek maanaam nit ki mënoo ragal yàlla ragal keneen maanaam yow maanaam li am li am solo mooy nga am sa nga sa confiance rek maanaam nga nga fexe maanaam ba mu tranquille sa borom maanaam loolu moo ci am solo bu ko defee li si des nag moom ndegam sëñ daara yi ñoom ñoo ñu war a demandé maanaam ndax jaar na ci woon te demandé guñu ko maanaam yow bu ñu ko demandé dana li liñ ci leer akus néew maanaam waa dëkk bi la mm-hmm. ak ñi nga xamante ne maanaam waa ci sëñ ñoom ñi nga xam ci xëy na ndog yeeg yooyu yooyu. waaw loolu moom mm-hmm. loolu moom moom moom moom moom wax dëgg yàlla yàgg nañ ci mu doon liggéey boo xamante ni. Mm-hmm. liggéey bu liggéey bu am solo la. Mm-hmm. ndax ndogu yi ci wàllu wàllu wàllu da daa doon rawatina maanaam wàllu wàllu fonde bi. ak ak mburu mi. xam nga mburu rek di jar fanweer ak juróom. ñu gis daara yoo xamante ni maanaam dana jënd lu mat juróom fukki mburu. man sama daara yi danañ jël war a fukki mbiru fukki mbiru fukki mbiru juróom bisu set mm-hmm. xam nga loolu koo dox ci diggante moom mm-hmm. maanaam taxawu nga ko mm-hmm. wàllu fonde bi maanaam daara ji daara joo dem danañ ndog daara joo dem bu ëllu xidma ñëwul woon tamit sëñ dan ñëwul woon taxawaay bi te taxawaay taxawaay boo xamante ni da cee wuutu kilifa diine yëpp ndax moo kilifa diine yi si dëkk bi yëpp maanaam ñoo ko ànd rafetlu ko waaye bu bu ëllu xidma ñëwul woon sëñ dañ defu liggéey bi daara yi danañu danañ danañ dog mhm. waaye nag dañoo ñëw seenu ñëw mhm. ndax da si gën a jàpp ndax maanaam maanaam bu ñëwee dañuy renforcer li ci nekkoon li fi nekkoon mhm. nga xamante ne xale yi maanaam danañ mën a lekk danañ mën a lekk mhm. maanaam danañ mën a xéewlu mhm. bu baax maanaam mën a xëdd bu baax maanaam te duñu am benn jafe-jafe macha allah kon mu nekkoon suñu invité sëñ Ibrahima Dramé bokk xam ci bokk na ci raabita fii ci diwaanu Louga parce que Ibrahima day mel ni waxtu yi ñu xaw kon naa kon kàddu yu mujj rek bu ko defee ñu jox dig dëgg mbokk yi xam xanaa di leen sant bu baax xam naa ne am na yu bari yu ñu bëggoon wax rek tey ñaan suñu ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan état bi mhm. jàkk yi nga xamante ni dañ leen tëj ak jumaa yi mhm. te loolu tamit wax dëgg yàlla kenn rafetlu ko mhm. te kenn du ko rafetlu maanaam ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dellu siwaat si gannaaw maanaam règlement règlement yi nga xam moom la ñu tëralal ñi xamante ni maanaam ñoo nekk ca garage ba mhm. nekk sa marché ba mhm. nekk ci Auchan yi mhm. nekk ci barab yi nga nekk ci hôpital ba règlement yi leen tëralal te jaxasoo ba ñuy jaxasoo moo gën a gudd fuuf moo gën a yàgg jaxasoo ba ñuy am ca jàkka ja maanaam loolu moom maanaam ñu gaaw dind ko ndax buñ ko dindul rek mën naa jur fitna joo xamante ni maanaam moo ëpp maanaam lem ñu la li ñu bañuloon kon ñu ngi sant ñëpp macha kon mbokk yi kon xam naa ne foofu la ñuy tëjee jotaay bi di leen jox di daje incha allah beneen yoon seen télévision la euh, Louga TV la télévision Louga 3 jërë ngeen jëf